espoir bu ñu am ci Ousmane Sonko yàlla bu ko yàlla tas espoir boobu nag moo taxit ñu wàcc sur le terrain. ñu wàcc sur le ñu wàcc sur le terrain ñëw suñu koñ suñuy yaay suñuy bàjjet suñuy tànt suñuy nijaay suñuy ànd jàmm wan leen nañu fal Ousmane Sonko ndax kooku. moo mën a soqali réew bi ndax kooku buñ ko falee ñu am lu ñu bett moo taxit waxoon naa ko ba ma toogee émission 2STV waxaat ko émission Sen TV euh, wala euh, DTV ñëpp yaakaar ne caaxaan la étudiants yi dañuy jouer rôle bu am solo kër bu amul étudiant amul kër bu amul élève amul ñooñu am nañ seeni yaay am nañ seeni mbokk am nañ seeni rakk

ngir kóllëre buñ sékk ci quartier bi ndax dundin bu rafet bi maa ngi leen si sant di leen gërëm mënuñu leen fay ci li ngeen di def moo tax it du guddal li may wax rek mooy ñëpp nañ def don de soi pour la patrie pour la patrie ndax buñ ko defee jeunes yi ñëpp nekk fii di Tamba Mbaal amuñu formation amuñu liggéey bëgg nañ ko kenn ku si nekk boo doonee jeune bëgg nga dimbali sa waajur boo doonee jeune bëgg nga soqali fi nga dëkk boo doonee jeune am nga bëgg nga am li nga téye mais boo gisee dérive bi yëpp parce que ñu ñu jiite amuñu ambition doxal réew bi dañu am ambition doxal seeni poos di demal seeni bopp ndax du dëgg du yoon soo demee tey jii Dakar da ngay gis ñoo xamante ni doomu barke yi ñoo xamante ne am nañ barke ci dëkk bi koo ci gis ñuy dawal ay oto yu seer liggéeyuñu ko sàcc alal réew ñooñu est-ce que dinañ continuer di leen dénk suñu réew mu ñu leen di ñëw di leen jox 1500 2000 3000 ngeen di ànd ak ñoom di tàccu di dem voté boo pare ñu ñëw sànq ñu sànq suñu doom après ñun ñooy payer les pots cassés. bépp xaalis bu ñu leen jox ngeen jël ko lekk ko am ngeen responsabilité.

set lañu ñoo xamante ils sont incorom mënuñu leen corrompre taxaw ne laaj dëkk bi ngeen leen di laaj xaalis ñee dem jëli xaalis ci tubaab yi jox leen ko marché tubaab yi di gagné ay milliards ñuy dellu seen i dëkk ñoom ñi enrichir seen i poos ñun ñu toog fii nii ak suñuy doom yi bu ñu yeewoo ñu leen di gis di leen continuer di dundal du dëgg du yoon dimbaleel ñu ngeen yërëm jeunes yi jël Ousmane Sonko dénk ko réew bi mu changé dëkk bi.